féliciter le ministère de la Santé, féliciter le président Macky Sall d'abord, féliciter le ministre Diouf Sarr bi nga c'est ne neex dëgg yàlla mu ngi def liggéey bu mucc ayib ndax loolu ñu on ba évaluer ko l'a nañ au Sénégal qu'il a fait pour xeex feebar bi ah du ma wax ne réew yëpp am réew yëpp amuñu ko waaye réew yi ko am Afrique bëriwul waaw mu noonu nag que xam dañ ciy bëgg lool ndax Sénégal moom ñëpp xam nañ ci moom dafa mës a am dispositif sanitaire moy Ebola bi mu fi dugg dispositif sanitaire bobu fi néwon mo fi né ba tay ndax directeur yi fi néwon ño fi né ba tay kon tay sax lu ñuy gën a rafetlu ci bi moy transparence bi ci ko am ndax neex deug yalla Ebola bi féké nañu ñu ko doon gérer ak tay ji ni ñuy gérer coronavirus bi amna transparence ci walu communication ci walu wax deug population waye ci walu jumtukaay yi ñuy utiliser nga xam ne xaalis da ciy dugg transparence am na ci lool donc loolu ñu gis nag ñu rax ci ñu tax nag ñu jóg tey pour dalal Sénégal yi ne nañu dal woo leen ci ñu jël ay jumtuwaay yoo xam ne mooy raxas seen loxo maytu maytu lépp luy salte di raxas seen loxo di leen wax ne état bi tam na gën a defaat accent ci sensibilisation bi donc loolu moo taxoon tey ñu woote nii pour féliciter état du Sénégal mais aussi wax population yi ne ko ah li ñu gis ci ministère de la santé dal na suñu xel. classe politique bi. waaw loolu nag ñu ñu ñu koy rafetlu ah ndax li nga xam ne la bu dal Sénégal euh, amatul euh, opposition ak pouvoir ñun ñëpp dañu war a bokk ndey bokk baay société civile tamit war a ñëw jàppale gouvernement ndax gouvernement mo fi ne buñ ko nax saayalee ah feebar bi dañu song bu baax donc dañu wara dolel gouvernement dolel gouvernement moy dolel ministre de la santé te euh, kooku di Abdoulaye Diouf Sarr nga xam président jox nako confiance ndax mom dafa am sens élevé de responsabilité am perception bu baax ci limi muy liggéey xelam dal don lu xel bu ñaw ci walu limi liggéey gis nañu ne comprendre na ko mën na ko ni mu koy doxalee baax na waaye waaw day tax mu gën donc ñuy rafetlu donc parti d'opposition yi la ñu def di a nag li nga xam ne gis nañu ay Mbodj def ko tey ci suba wala démb mu doon koo ku ñu ci politique man personnellement dama ko naw donc ma koy wax ne rek mu bañ a jël la nga xam metti woon 2016 muy bañ bañ ko jëlee ci mairie ci conseil bu département ba nga xam ne mooy département Bambey Ablaye Diouf Sarr moo yoroon collectivité locale donc ci loxoom la jaar mu jàpp na jàpp ne rek Ablaye Diouf Sarr du ay dëmbooj la doon ren di Ablaye Diouf Sarr dafa doon faire appliquer une loi bi nga xam ne Sénégal moo ko voté muy cumul des mandats kon loolu bu mu tax daal mu jàpp loolu ci xolam ba tey mu taxaw di wax ne Eva Marie Coll ak Abdoulaye Diouf Sarr loolu rafetul

donc loolu lu am solo la cas contact boo ko jàppee rek mooy xotti nga yoon bi microbe bi di jaar ba nga xam ne doomu jàngoro bi dootul mën a propager bu ci population yi kon ñu ngi dellu si di ko féliciter ba pare di ko wax di ko encourager nag ndax félicitation sax teel na mais dañ koy gën a encourager waaw.